asalaamaaleykum dal leen nag jàmm waxtaan bu yaatu bi njiitu réew mi woote atte yi nar am ci diggante Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang ak Adji Sarr ci juróom-ñetti fan ak fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mais bi ñu nekk ak it jaloore bi nga xam ne moom la gaynde yu ndaw yi amal ci Algérie moo soxal ëttu yéenekaay ñu xëyandool dañu koy door woote waxtaan bu yaatoo yaatu bi nga xam ne moom la njiitu réew mi namm si suñu réew taxawaay bi nga xam ne moom la ci kujje gi am nag rëccul benn yoon ëttu yéenekaay bu groupe sut Communication du Sud Quotidien ñuy xam le nag yile woote woote waxtaan mu ngi am ci jamono joo xam ne nag li des ak suñu diggante election bu ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ci atum 2024 motatul fukki weer ñi fare président Macky Sall ñu ngi koy siiwal bu baax a baax ci beneen wàll wa nag ñi nga xam ne ñoo gën a fës si gi daal ak yenn ci mouvement citoyen ñoom fas yéene wuñu wuyu ji ku ci mel ne Yewwi Askan Wi ak ay ñooñam ñi nga xam ne daal xamal nañ Macky Sall ne soxla loxo bi mu leen di tàllal F24 moom mi nga xam le ne li ko soxal leneen la du yile waxtaan mi Touré moom ni li yëpp daal ay pexe yu Macky Sall la maali Gakou moom it dal bu baax a baax ci président Macky Sall Walf Quotidien it waxtaan yi la soxal ko bu baax a baax rawatina nag ñi nga xam ne dañ cee ànd ak ñi nga xam ne fas yéene wuñ fa teew ku nekk daal yaa ngi ciy yëkkati ay kàddu ci jamono jooju nag waa laas ñoom jox kàddu gi ki nga xam ne mooy di dëcc fay bokk ci ñi ñu duppee ay noon na li ñee maanaam ñu ajiwul ci fenn ñoom it daal ñu ngi joxe seen gis-gis ci boobule waxtaan waa l'info ku jigi ñi dañoo gedd woote président Macky sàll bi ginnaaw Ousmane Sonko Mimi Touré ak Déthié Fall ñu wane ne fas yéene wuñ fa teew Thierno Alassane Sall ak Malick Gakou yit gedd nañu boobule jotaay ak it docteur Babacar Diop bi xamle ne daal moom dafa am ay sikki sàkk jëmale ci boobu boobule wootee Malick Gakou di xam ne ne parti bii di grand parti fas yéenewul bokk ci benn dialogue boo xam ne daal li ñor askan wi taxu koo jóg ci jamono joo xam ne dañoo sonn lool parti Pastef ak ki ko jiite di Ousmane Sonko loolu yóbbu ñu sax ñu waxtaanee ak waa Vox Populi atteem diggan mag Mambey Niang bi ñu fas yéene amal ci altine juróom-ñetti fan bi ñu jëm cour d'appel bi ak Mambey Niang yépp naruñ gis takkandeer Ousmane Sonko foofule li ko waral mooy meeru ci Ziguinchor bi ci boobu boobule ak ci waxtu wa it dafa woote ab réunion bu conseil municipal bi ak Ousmane Sonko la ñuy desal ak beneen atteem bu koy xaar bi yoon ci a ak Adji Raby Sarr waa Sud Quotidien di ñu xamle ne ci mbir mi nag waa société civile daal ñu ngi artu bu baax a baax ne daal boobu boobule atte ñoom dinañ ko bàyyi xel bu baax a baax ba tey ci wàll politique waa Lonkeer ñoom di ñu waxtaanee Khalifa Ababacar Sall dafa dellu ñu dellu si nag ci li nga xam ne daal moo gën a jam jëmale ci wàllam ñu joxaat ko ay sañ-sañam ba mu bokk ci yooyu la élection ci jamono jooju nag suñu naataango yi ñu xëyee ndool rawatina les échos bés bi le jour ak vox populi di ñu xamal ne kuréel bi nga xam ne mooy ONL LPL saytu nekk ni doomi aadama yi ci biir kaso yi daal li xew ci kaso rëbës ak ci gicoor jaaxal na ko lool muy xamle ne yenn ci ay manifestants yi nga xam ne dañ leen tegoon loxo ci yëngu yi nga xam ne moom la kujje gi doon amal daal doxalin bi ak ñoom rafetul dara ñu des ba tey ci yooyu les manifestants ak mbirub lii ñu duppee ay cocktail molotov maanaam ay bouteilles ñuy sol essence wala li ni xeetoo di ko taal l'observateur di dellu si ci lu yees ci yooyu la l'enquête rawatina nag jox ko ci wàllu téléphone yi nga xam ne moo doon am guddi ak koppar maanaam transfert d'argent yi nga xam ne daal moo taqal rip Ndeye a Diop donte nag weddi na ko ba mu set ba tey ci wàll yoon waa tribune nag li leen ëlëm mooy li xew ci Thiès ndax dañ fa teg luy tolloog juróom fukki million ci kopparu CFA yoo xam ne daal jaarul ci yoon bés bi la jour it li ko ëlëm mooy li nga xam ne moo xew ci wàllu xarala yu yees yi muy ay njuuj njaaj yoo xam ne daal ay chinois ñoo ne ci gannaaw gi li xew it ci université Alioune Diop bu Bambey rëccul benn yoon waa Libération li waral li yëpp daal mooy mbirum mbëggeel ndax dafa am koo xam ne agent administratif la foofu foofulee moom nag ngir neexal étudiante bi nga xam ne moom lay labat mooy daka jox épreuve yi nga xam ne moom la ñu waroon def ci ab l'examen waaye nag étudiante ba dafa jël yooyu la épreuve jox ko ñëpp ñoo xam ne daal ay xaritam lañu ginnaaw guñ ko ci takkalee rip administratif boobule dafa daw ginnaaw gi waa SAES e yëkkatee ab plainte teg ko ci ndoddam ci jamono jooju nag le soleil di ñu xamal ne jëmale ci ndaje bi ñu amaloon démb di conseil national de la consommation njëgu dëwlin bi wàcc na ci jamono joo xam ne nag njëgu suukar si moom yokku na dalal bi ñu nar a dalal nag Charles III di buur bu bees bu Royaume-Uni bu Grande-Bretagne ak Irlande du Nord moo soxal le soleil di firndeel ni Charles III daal muy wuutu reine Elisabeth II njiitu réew mi président Macky Sall dana teew ci Londres mile moo ko fa invité ci wàllu tàggat yaram nag jéego bi nga xam ne moom la gaynde yi naw amal fa le ci Algérie ci coup d'Afrique des Nations bi leen di dajale moo soxal ëttu yéenekaay yi ñu xëyee ndool ñu ne daal jaloore gu am solo la fa amal ndax ñetti match yi nga xam ne jot na ko fa amal yépp moo jël ndam li ñaax fukkeel ak bés Ligue 1 sénégalaise bi it rëccul benn yoon suñu naataangoo yi ñuy waxtaane jongante diggante Jaraaf ak Dakar sacré ak it jongante ci biir mbokk diggante jàmbaar ak Stade de Génération Foot ak jàmbaar ku nekk yaa ngi dëkku sa morom ñu jeexale koog waa sunu lomb di waxtaane mbirub front rawatina kombaam ci diggam ak Forza ndax mooy doon ponkal bu njëkk bi nga xam ne moom la nar a jaakaar lool ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru mai lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyee ndool ñu yéen doog jàmm Bonjour. Le dialogue politique, le procès du 8 et 16 mai prochain, ainsi que la performance des Lionceaux, ces sujets sont fortement relayés par la presse du jour. Démarrons par le dialogue politique, tout d'abord avec le quotidien du groupe Sud Communication Sud Quotidien. Participation à ce dialogue politique, l'opposition est en mode défiance, d'après le confrère. En effet, les concertations politiques appelées à moins de dix mois du scrutin présidentiel d février 2024 par le chef de l'État Macky Sall, le camp majoritaire semble parti pour se faire sans une grande partie de l'opposition dite significative et de certains mouvements citoyens pour cause au fur et à mesure que l'appel est porté par le parti présidentiel et la coalition Benno Bokk Yakaar des positions s'élèvent de l'autre côté pour dire non au dialogue politique sous format maquis comme en témoignent les dernières sorties du PRP de Déthié Fall de grands de Malick Gakou et autres plateformes Avenir Sénégal bi ñu bëgg dont la foulée du F24 d'Ousmane Sonko et Aminata Touré toujours dans les colonnes de Sud Quotidien Yewwi Askan Wi et compagnie récuse la main tendue du chef de l'État au moment où le F24 juge ses priorités ailleurs alors que Mimi Touré parle de manœuvre et que Malick Gakou du grand parti clache Macky C'est tout simplement la guerre des mots entre pro et anti-dialogue, intime conviction de Walf quotidien, intime conviction au moment où l'AS donne la parole à Dike Faye du pôle des non-alignés. Suite à cet appel au dialogue politique du chef de l'État, il fixe le cap dans les colonnes du confrère. Maligaku, qui affirme dans les colonnes de l'info, je cite, le grand parti ne participera à aucun dialogue totalement en porte-à-faux avec les intérêts supérieurs de la nation et dans un contexte qui met en exergue la persécution du parti passif et de son président Ousmane Sonko, ce qui pousse le confrère de titrer à sa Maki est boudé par l'opposition. En effet, après Ousmane Sonko, Mimi Touré et Dekefal, qui ont rejeté la main tendue du chef de l'État, Tierno Alassane Sall et Maliga Koboud également Macky le cadre du dialogue national, mais aussi docteur Babacar Diop, qui émet des doutes sur la sincérité même de l'appel au dialogue au moment où l'AS donne la parole à Déthié Faye du pôle des non-alignés Suite à cet appel au dialogue politique du chef de l'État, il fixe le cap dans les colonnes du confrère. Restons dans le champ politique avec l'enquête qui s'intéresse au retour dans le jeu électoral de Khalifa Sall et relève ses chantiers. Favorable au dialogue, Khalifa Sall espère tourner la page de son inéligibilité. Le séminaire programmatique du PRP, le parti de Déthié Fall, intéresse les échos. Son leader promet un Sénégal bon à vivre et beau à voir. Et Nous allons gouverner si nous sommes élus sans aucun complexe vis-à-vis de qui que ce soit. Après le leader du PRP, passons au leader du parti passif Les Patriotes, Ousmane Sonko. Procès du lundi 8 mai, la cour d'appel et Mambégnon ne verront pas l'ombre de Sonko. Le confrère s'explique. D'après Vox Populi, il sera à Ziguinchor où il a convoqué aux mêmes dates et heures une réunion du conseil municipal. Avec l'ouverture prochaine du procès Ousmane Sonko à Adji Sarr, la société civile est en alerte dans les colonnes de Sud Quotidien qui renseigne que les défenseurs des droits humains auront un nez attentif sur ce procès. Au même moment, la situation carcérale des personnes arrêtées dans les manifestations de l'opposition inquiète l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. L'ONLPL dénonce des cas de mauvais traitement à la prison de Rebeuss et de Ziguinchor. Restons dans les couloirs de la justice pour nous intéresser cette fois-ci à l'affaire des cocktails Molotov. avec l'Observateur qui se propose de nous fournir les nouveaux éléments de l'enquête, notamment ces échanges téléphoniques nocturnes et les transferts d'argent qui enfoncent Ndeye Awa qui recevait des fonds de responsables du parti pour financer les cellules Tribune qui indique que 50 millions de francs CFA en faux ont été saisis. Trois faux monnayeurs, dont un Gambien, ont été arrêtés. rocambolesque s'exclame Busby le Jour, qui relate ce démantèlement d'un vaste réseau chinois d'escroquerie via le Le couronnement de Charles III, le roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, n'a pas échappé au soleil, qui titre ce matin sur à propos d'un couronnement invité du roi, le président de la République Macky Sall est à Londres. En sport, la performance des Lionceaux à la Cannes des moins de 17 ans intéresse la presse victoire, les Lyonceaux font le plein. Alors que pour Sad, le quotidien du sport, le Sénégal survole la poule A. Le carton plein pour les Lions n'a pas échappé à un Le soleil informe que l'huile baisse de 100 francs et que le sucre est en hausse de 75 francs. La lourde mission de Franc contre Forza n'a pas échappé à son olombe. Franc va faire face à son premier super lourd. Ce sera le mai. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.